qalbi lahu fi itaab al-jismi takraaru li'annahu lil-hudaa wan-nuuri jarraaru qalbi lahu fi itaab al-jismi takraaru li'annahu lil-hudaa wan-nuuri jarraaru auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina wa nabiyina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwan wa tamkin bokki M Media Group Nourou Darayni bokki taalibe yi bokki jullit yi ginnaaw bu nu sante suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonentam bu tedd ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dellu santal seexna alxadim alayhi akbaru ridwanullahi albaaxi alxadim di ñaan suñu borom subhanahu wa taala ko dellu santal suñu borom bu baax bi mu nu may ñu dikkaat ci waxtu wi ci jataay bi ci bis fas yi ne àndaat ci sunu émission yóbbalu soxna yi zaadu nisaa il muslimaati di nasihatil muminina wal muminaati euh, doon jotaay boo xam ne jotaay fàttalente la ak laayante biir mu mel ni fàttalente ak laay biir lu war la ci diggante ay jullit ndax wa zakir fa inna zikra tanfaul muminin naka noonu laayante biir lu war la ndax addiinu nasiha lillahi wa li rasulihi kitaabihi wali aimatil muslimina wa ammatihim xana ñëwoon nañ ci ci njëlbeen ga ci ak yaatal euh, jataay bi nag jataay la boo xam ne ñoo ngi ko jagleel sunu bokki soxna yi waaye góor yàlla itam insha allahu taala mën nañ cee am ak cër kenn ku ci nekk lu ci suñu na ma sag jëriñ euh, jataay bi nag mooy fàttalente rek la ak soññante ak dénkaanante ci jamono rawat na suñu bokki soxna yi ndax suñu borom subhanahu wa taala moo wax wa ma xalaqtu jinna wal insa illa liya'budun jaamu ga nag lu war la ci mboolem mboolem ko suñu borom subhanahu wa taala sàkk rawat na jullit ñi jullit bi nga xam ne dafa dem ba nekk mu kàllaf nekk ku nu togg jëf war naa mën a xam di suñu borom ci moom ci mu jëfe ko waaye li nga xam ne suñu tere na ko mu sor ko mu sori ko moytandiku ko euh, ndax ni nga xamee ne noonu la boroom laxdar yi waxe awwalu wa awwalu ma yajibu ala al mukallaf tasxiixu imaanihi nit ki bu demee ba nekk mukallaf la jëkk a war ci moom mooy ma xam la nga xam ne ak ngëmam dana ci wére summa maarifatu ma yuslimu mu xam farataay jëmmam mi nga xam ne farata la ci moom te moom rek moo ko mën a defal boppam keneen du ko defal ci mel ne xam atey julli xam atey koor atey asaka ak màkka ak yeneen yasi ak yëpp eh, rawat na ñi nga xam ne suñu borom dogal na mooy suñu bokki soxna yi ñi xam ne xañ na dañoo yombal seen ak dund lool jàpp ne xañ ne jaamu yàlla waru leen wala bu leen waree tam nam leen soobe ak lan koy defee wala bu leen bu leen ko defoon na leen soob itam balam leen a war ñu dem ba doon mag ba màggat nga xam ne amatuñu benn itte ci àddina àddina tam amatul itte ci ñoom déedéet te demewut noonu dinañ faral di jël misaal ci soxna jaaratullah nga xam ne li gën a siiw dañuy wax ne fanweeri at ak ñett la dund ci jamono waaye gis nga cër bi nga xam ne moom la am suñu boom jagleel ko ko mu nekk ñaari cër cër boo xam ne fadlu taxsiis la ak fadlu kas bi taxsiis ak alkes bi leeroon nañ ko taxsiis mooy li nga xam ne suñu borom daf la ko jox rek ci ak mbaaxam eh, ak li nga xam ne danga góor góorlu ba suñu jox la ko ci ak mbaaxam moom tam kon li nga am te xam ne te xam ne suñu borom moo la ko jagleel ci ak mbaaxam ak li nga góor góorlu ba am ko lool moy alkes bi ak ak nga gis ne soxna jaaratullahi ak dundam gàtt na lool ci zahir waaye gudd lool ci baatin ndax fanweeri at ak ñett ku ko dund mm, ki koy am ci jamono ji ñu toll day doon ndaw loo xam ne xañ na mën naa jàppe boppam ne duggagut jamono te fekk na booba jamono moom jamono moom say boo ci duggee rek dugg nga si rawat na ki nga xam ne dem na ba nekk moo kàllaf waaye soxna jaaratullahi dund am fanweeri at ak ñett liggéey liggéey bu bi nga xam ne moom la am ci moom la liggéey ci àddina ba suñ borom jagleel ko lim ko jagleel waaye may ko lim ko may nga gis ne at yooyu soxna jaara dundoon mooy fanweeri at ak ñett am na ci soxna yi ñoo xam ne dund nañ lu ko ñaar ca mooy dund na juróom benn fukki at ak juróom benn te wax na ne ñoom commencé gun wàllu jaamu yàlla ndax dañuy xaar ba ci kanam ban gën a te fekk na boobu xamul ne alquran wax na ne almawtu laa yaati illa baxtatan Sëriñ Tuubaa nee na almawtu yaati baxtatan wa rubbama yakunu za sawaxilil muxtarima de moom saay buy dikk day bette tabarwaana bu dikkee fekk la nga nekk si ay mébét bu déwénee ma def nangam bu weeru dee ma def nangam bu sàngam nangam bu suba bu ngoonee day dikk yóbbu kon ku dee rek yóbbaale mébét kon jamono ji xam ne yaa ngi dund lépp lu nekk sa kanam lu war def rek na nga ko def kun waxti ka euh, wala maa tasawuf dañuy wax ne na nekk sa doomi waxtu mooy lan mooy jamono joo teew rek la la war ci jamono ja bul ko yeexe def ko ca saasi nga gis ne lenn ci bokki soxna yi bokki jigéen ñi xam ne jaam yàlla dañ ko oyfal lool jël seen mbiri àddina jiital ji mën nga ci gis koo xam ne mën naa teel a xëy lool ngir la nga xam ne moom la yaxanto te la muy teel a xëy nag te taxawal julli suñ boom subhanahu wa taala ñaari rakan yi nga xam ne moom la santaane te farata ak ñaari rakan yi nga xam ne mooy na si te mooy fajar ak suba ittewu ko naa jog ci njël nekk ci wàccaayu liggéeyam waaye nag wàccaayu jaamu suñ borom moom waxu ci dara te xam ne lim nekk moom du jeex la waaye jaamu suñ borom subhanahu wa taala gi du jeex rawat na suñ suñ boroom manee mayee nga mën a jóg ci waxtu woowu ci waxtu njël mën a jublu ci loo xam ne xañ na sa àddina rek la lay eh, la lay defaral njëm sax dina la dina la defaral sa àddina te waxtu woowu boo ci jógee waxtu la woo xam ne waxtu wu baax la wu baax a wu neex topp suñ boroom subhanahu wa taala wu neex a jaamu yàlla ci ak dal ak sell ak xalaat suñ boroom sa Euh, donte liggéey xañ na bu fekkee mënta ñàkk bala nga suubu ci sa liggéey boo jógee ci waxtu woo fexeyal julli sa ñaar rakan jaamoo ko suñu borom sante ko suñu borom def say lawraatoor jublu ci sa wàllu ndax jamono jooju jamono ju jamono ju euh, mot a bàyyi xel la yoo xam ne jaamkat yi suñu borom subhanahu wa taala digg digg dañ koo taamu Sëriñ Tuubaa nettali nañu ci masalikul jinaan nee na am na ku ñuy wax Zeyxuna Junaydi ak ibnu Xaasim ba nu faatee ba nu dafa am ñu gis ci nit yàlla laaj leen ana nan ngeen def ak seen borom subhanahu wa taala ñu wax ne lanu jaamu woon suñ borom subhanahu wa taala lépp di jeex na lépp jeex na waxam julli ya wala koor ya wala asaka wala añ nàkk ya wala digle wiiw wala tere ñaawti wala saraxa wala lu ko daal jeex na ba mu des yoolub ñaari rakan yoo xam ne dañ ko saxalan dañ ko julli ci njël wala daal lañ fi dese wa cheikhuna junaydi wabnu xaasim kilahuma saalahu fi nawmi an alihi baadu xaw xawmi fa xaal lam yabxa lana mimma zahar siwa ruqyatin adamnaha fi saxar kon bokki waxtu njël woowu lu ama am solo la rawat na suñu bokki soxna yi nga xam ne suñu boom def na ñoom ñu di jóg ci waxtu woowu di Euh, jëm ci wàllu toppatoo seen wàllu liggéey yëmu ci soxna yi rek waaye ci góor yàlla yitam góor ñi ndax am na ci ñoo xam ne mën noo jog ci waxtu woowu mën a takk seen dàll mën a daw lu sori lool wala lu lool waaye am ci juróomi minutes yoo xam ne dañ koy mën a taxaw jàkkaarloo ko suñ borom jullil ko ñaari rakkan rek mënuñu ko kon kooku moom ku jara seetaat boppam la ku jara bàyyi xel la dañu mën a ci njël wala sax njël gu jëkk nga mën a jóg takk say dal dawlu sori lool te mënu jullil sa borom subhanahu wa ci jamono jooju ñaari rakka dong wala nga toog def téeméer la wala alhamdulillah wala allahu akbar tamu doon jamono joo xam ne jamono ju ju seer la ju gànjaru la kon loolu lu jara bàyyi wat xel la àddina daal suñu borom subhanahu wa taala wax ne na ngeen fexey na ngeen moytoo moytandikoo woru ci àddina bokk na ci li nga xam ne mooy moo lay war ci àddina rek nga jël sa jublu gépp def ko ci àddina rek rek rek bàyyi sa borom subhanahu wa taala fële jël sa àddina teg ko sa ndeyjoor jël sa àddina jël sa jël sa àddina teg ko sa càmmoñ loolu mooy nga gën a ittewoo àddina te laa tastari dunya bi uxra yaa fata man baa an nuuran bi duja fasa yan bul jël sa àddina mi jënd ko sa àllaaxira ndax àddina day jeex te àllaaxira day àllaaxira du jeex képp koo xam ne danga jël ak leer nag jënd ko ak lëndëm danga rëccu rëccu rekk moo kon jullit bi mu jël mbiram boroomam teg ko ci kanamam waaye jël mbiram àddinam teg ko ci ginnaawam xañ na àddina am na ci loo xam ne mënta ñàkk ndax wabtaqi fi ma ataaka allah daar al axira wala tansa nasibaka min ad-dunya waaye li nga xam ne mooy sa sa ci àddina bu mu suul mukk li nga xam ne mooy sa si diggante ak sa borom subhanahu wa taala rawat na ëllëg yowmal xiyaam nit ñi nag euh, alal moom dafa mel ni lim leen jaral euh, fa nu war nañ teg suñu borom subhanahu wa taala foofa teg alal fi nga xam ne foofu lañ teg alal ci jamono ji nga xam ne ci lañ toll buñ fa tegoon suñu borom ñëpp ay wàlli yu la ñuy doon ñëpp rek ay nit yi suñu borom subhanahu wa taala la ñuy doon waaye nag fan war na teg suñu borom teg nu ko fa alal lan fa lan fa teg te ma indakum yanfadu wa ma indallahi baaxi loolu mooy alal ji ngeen di wut day jeex dong waaye suñu borom bu ngeen ko wutee ba am ko du jeex ca àddina du jeex ca àllaaxira boo gisee lenn ci nit ñi li ci ëpp seeni ñaan léegi mooy alal rek la ñuy ñaan eh, da ngay dégg kuy wax ne yàlla nga nekk milliardaire wala yàlla nga nekk milliardaire Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa moom milliardaire milliardaire milliardaire Sëñ moom baax na ndax milliardaire moom milliard moom boo ko mën nga ci lu bari lu baax eh, waaye nekk milliardaire Sëñ Tuubaa moom te tegu tànk fa Sëñ Tuubaa teg lu tànkam nekk waliyu Sëñ Tuubaa teg sa tànk fa Sëñ Tuubaa teg tànkam moo ko gën nga nekk ku ñàkk nekk wàlliwu te teg fa suñ boroom fa suñ tubaa teg lu tànkam loolu moo gën nga nekk milliardaire te fa suñ boroom fa fa tubaar yi ridwan la alayhi teg lu sab tànk tegu ko fa euh, euh, te sëñ bi ba ñaan lam doon ñaan mooy nga nekk nitug yàlla koo xam ne ku sell ngay doon ku mucc ci iblis koo xam ne sa lépp suñ boroom subhanahu wa taala lay doon ونجنا يا خالق الشيطان من كيده وزلب الإيمان بجاه أحمد مع الباري صلى وسلم عليه الباري وأغرنا في كل ما طراه وكل وكفنا عن كل ما طاباه suñ boom nga xeertam ci lépp loo xam ne suñ boom bëgg na ko waaye nga fekk ñu ci lépp loo xam ne suñ boom bëgg na ko وأن نوفق إلى اتباع سنة المختار طويل الباع ak nga dëppale nu ci ñuy jëf sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom jéegu bu gudd ba wa an nusalliya wa an nusallima alayhi wa al wa man lahu ntama waaye wa an nakuna ulama il ñu bokk ci borom xam-xam yu mag yi bokk ci wàllu yu mag yi wa an nakuna furxaata labaari jamiihim fi sirri wal jahari ñu bokk ci tànnee borom xam-xam yi tànnee nit yi yi tànneefi nit yàlla yi ci lu nëbbu ak ci lu feeñ sëriñ bi yaakaar na sëriñ bi yaakaar na ak ñaanam li ëpp ci ñaan bi moom buy ñaan ci wàllu suñu borom lay ñaan waaye addina moom boo ko ñaanee mu addina moom yaakaar naa du ko ñaan loo xam ne addina rek rek rek lay doon sëriñ bi du ko boole ci ak ñaan bu amee suñu borom nag mën nga am addina am alaxira waaye mën nga am addina rek rek rek yem ci te doo am suñu borom subhanahu wa taala loolu tax mag ñi ñaan dañuy wax ne suñ boom bunde bundaa ñaan alal dañuy wax ne alal ji boonu ko mayee yàlla nekk ci suñu ténq waaye du nekk suñu xol ndax alal bu nekkee ci sa ténq du dox sa diggante ak sa boroom du dox sa diggante ak sa moroom waaye saay bu nekkee ci sa xol rek dox sa diggante ak sa boroom dox sa diggante ak sa moroom kon moo tax alal bu mënta ñàkk ban ko daal ñaan suñ boom yàlla na ko defal suñu ténq te bañ ñu ko defal ci suñu xol suñu ténq mooy na nekk ci loxo bi rek